asalaamaaleykum mbokk yi tedd yi maa ngi tudd Essa Bokarr Sy maa ngi ñëw dajewaat ak yéen ci jamono ji nañ leen ko joxee dig daje ne yéen xam ngeen ne fu mu nekk nii ca réewi Gambia xanaa lu beesati waaye yàqu-yàqu ak eh, jalgati tasaare moom doona tut loo xam ne eh, bu leen la fa kon itam bu booba li fi indi moo di eh, wasaare lu nëbbu ci wàlli jëf ju bon ak ci wàlli jéego yu bon ne yéen a ngi fàttaliku ci fan yi gannaaw bi nga xamee ne Yaya Jammeh ñëw na dekk ci télévision bi ne dafay wax ak askani Gambia moo xam ne nag xanaa maqaama mu def ko ci maqaama boppam waaye nag defut ko ci maqaama officiel because mënatut a am maqaama officiel bu mooy wax ak si xanaa moo ko bugg def boppam waaye he's lost legitimacy pour mun a nekk président gannaaw bu mu waxee loola ñu ngi fàttaliku ne keroog leen dem bu bi nga xam ne moo xewoon foofa ca Gambia yi leen ci jotoon a jàngatal tam xewoon na moo di gaal yooyu mu indi woon ak lan leen ci waxoon waaye leneen xew na ci biir loo xam ne ñu bari yëguñ ko am na ñu ko yëg nag euh, ne dañ toj Central Bank Euh, man nag li may invite mooy ki jiite central bank euh, na genn si mu weddi li may wax euh, ñu di ko ñaan nag su koy weddi na ko def Gambia Radio and Television Services wala su fa mënut a def moo dem ci benn télévision Sénégal wala mu def ko YouTube wala Facebook li tax ma ko koy ñaan mooy dañ bugg a am évidence bi denca ko ne nguur gu bees bi bés bu ñëwee dinañ dem ca central bank nag méngale lam wax ak ñun luñ wax ak lañ gestu euh, bu booba keroog dinañ xam kon kana doon xelaat di wax rek wala koo xam ne dafay indi ay firnde yu ne jonn ne mu ngi nii euh, te loolu tax na di ñu dellu di leen indi laa tam ne euh, comme niñ leen ko joxee dig daje rek lu xew rek dina ñëw dal di ko wasaare nit ñi yekko ne Nyari minister yoo xam ne ñu ngi nekkoon ci yaaya euh, jàmme euh, bokk nañ sax ci ñi nga xam ne ñoom si bo seen bopp joxoñ la neen baram ne yóbbuwaale nañ ci xaalis booba ñe ñëw ñaar ñooñu wàcc nañ ñu fale ca belgium ñu ngi jël sm brussels euh, xaalis booba nag ñenn ñi si ñoom dinañ ko yóbbu ci yeneen réew mun nañ koy yóbbu sax ci europe li nga xam ne mooy xarfu mooy fi nga xam ne foofa la eastern europe la tudda Ah, loolu ñu dal di ko wax mbokk yi ñu bàyyi ko xel ak itam leneen li nga xam ne ñu ngi koy ba bàyyiloo ñépp xel waxi noppi nag ñi denc ci ñi nga xam ne ñooy liggéey ci bunti dencukaay xaalis yi moo di banque nañ xam banque locale yi nekk ca Gambia waxi noppi yenn yi nga xam ne nag defuñ loxo ci mbuus ak nguur gi bokkuñoo nguur gi dara ñooñu nañ bàyyi seen xel ay nit yu ñëw di leen indil xaalis bu bari waxi noppi nag xaalis bu bees pekk bu di dollar ak euro xam central bank dafa am currency note ci fa nekk am nañ nomba mooy siifar bu ca nekk waaye comme génnagul ci society bi kon booba nit war ko koy lekk fekk introducuñ ko te itam da ngay gis central bank sax am na fa machine bu dee lakk xaalis ma di xaalis boo xam ne dañ ko depress maanaam depress good la léegi boobu is out of circulation nga gis ñu koy lakk ay soldat di ko garder yooyu yooyu yëpp dañ ko jël nag taxañ ko boole ko ci xaalis bu bees bi di ko wasaare ci biir adduna bi waxi noppi Gambia liggéeykat yi si banque bi bàyyi leen xel ca loolu di jéem a seet xaalis booba mais ku ko ci seetu am na yenn unit yoo xam ne ñu ngi zoom ci Yahya Jammeh ci wàlli anti money laundering arms trafficking ak li nga xam ne mooy cocaine trafficking te li may di wax ni ngeen baal ma àq waaye lii du caaxaan lii nekkut journalisme man duma journaliste te toll nañ ci jamono boo xam ne damay beddeeku sax ci foofu te soo leen seetloo léegi su ma waxee vidéo bi dafay gàtt ma dem ne man kenn waxuma dafa am ju may waxloo te li tax ñuy wax mooy dañu yee askan wi ñu xam euh, bu boobaa ñu ngeen war a mën a xam itam ne moom mii di Yaya Jammeh ak ay àndandooram ñen ñi ci ñom dawari nañ xaalis yobbu ko ci ay réew yu melni Guinée Bissau ak itam ñen ñi yobbu ko Sénégal ci kaw loolu ñu ngi ñaan Sénégal nañu alerter seeni douane ak seen patrouille bi nga xam ne moo nekk ci seen frontière ñu bàyyi xel ñi nga xam ne dañooy ak xaalis boo xam ne dafa bari ci seeni réew mais am na lu ñuy oy anti money laundering loolu man mii di wax sax yàlla def na ne dañ ma ci train ma certified te am na ay expert yoo xam ne ñu ngi koy def ak forensic forensic auditors ñooñu ñi nga xam ne ñooy anti money laundering nag am na ci ñoo xam ne ñu ngi topp yaaya jàmme ak ñi liggéey ñi ko wër te li ma leen di wax nag du affaire yi du affaire yi caxan li du journalisme ñooñu sax li tax ñu topp leen du dimbale sax nguur gu bees bi de ñooñu ñenn ñu si ñoom dinañ jàpp i tur te dinañ leen tëj ci réew yi tugal itam Euh, bu boobaa noonu la ñuy def di yee askan wi ne dimbale ñi jàpp sàccakat moo gën nga bàyyi sàccakat te itam ministre yu daw itam dañuy def loola loolu yëpp nag soo ko xoolee teg ko war a mun a xam nag ne banque yi nañ bàyyi xel di indi façon yi xaalis yooya di ko yàq te wala itam di ko sàcc di ko indi pour raxasaat ko euh, balaa may tëj nag ki jiite central banque bi ni ma ko waxee ñu nge koy wax ne suy weddi lii xam nañ ne gaa dina génn weddi dafa ragal Yaya Jammeh waaye su koy weddi na doon gor mu def ngir yàlla mu def ko ci Gambia Radio and Television Services wala mu def ci Télé Sénégal wala def ko YouTube wala defal ñu ko Facebook ne ëllëg dinañ ci delsi te bu soobee yàlla eh, investigation ci xew ci affaire yi Central Bank li ngi demee ni xaalis yi doon jógee ko Libya di fa jaar ak yeneen i mbir loolu moo indi toje ba dafa am nag yoo xam ne soo ko waxee si Yaya Jammeh dafay nuroo loo xam ne gént la ba ñenn ñi dañu wax di ndax lii dafa mun a am waaye li ma leen di wax fii man yàlla xam na ni xam naa bàmmeel am na te ñun liggéey bu ñu topp du journalisme kon nag ngeen xam ne loolu moom mooy mbir mi te dinañ bugg di génnee di e société bi ne am na yenn yoo xam ne ñépp ci war a bokk jàppale réew mi defaraat ko raxasaat ko buñ ci xaarate ko rek Adama Barrow His Excellency président elect ak coalition team bi lii ñun ñëpp ñoo ci bokk ñun ñëpp coalition team lañ ñun ñëpp Adama baro lañ ne réew mi dañ ko war a defaraat dañ ko war a raxasaat dañ ko war a jubbanti te loolu suñ koy def dafa war a nekk ci loo xam ne ci dégg la tegu te dañooy gestu te duñ ci tooñ kenn luñ leen fi indil di ngeen xam ne lu leer la Sénégal nag ñu ngi leen di yónnee benn euh, maanaam daal euh, di leen dànqaafu daal ni leen ne nañ bàyyi xel am na jamono boo xam ne sax ñoom amoon nañ walli euh, lii di raxas xaalis ba ca Sénégal ne li may yëgal nit ñi mooy ne machine bi nga xam ne nekkoon na foofa ca gendarmerie Euh, Fajara Barracks buy euh, defar xaalis bu bari xaalis bu baaxut ba léegi yaa jàmme mu ko amee te mu ngi koy jëfandikoo na ko nit ñi xamee noonu man duma ko tuumaal moom xam na li may wax yépp dégg la kon loolu laa leen fi indil jàmmandoo bu dara ñëwee ñu war a ñëw taxaw pour indil leen euh, update si dinañ leen ko defal nu mu waree jërë ngeen jëf ma di seen mbokk Essa Bokarr Seye